Ajaga tout droit ah tey nag ñu ngi jëfee ah, à domicile chef du champ mag boo xam ne kenn ko présenté muy Serigne Ndiaye ah wala nga nekk Rajaxe numéro 2 moom lañ seet ci fii di ji parce que gars yi boo a bëre pousse wala moom la Serigne war a bëgg looloo tax ñu déplacé tey fii ba jëfee ah ñoo fekk muy entraînement xam naa ñu koy bàyyi rek muy Serigne nañ la. fay nañ la Zambro ginaaw bu ñu sant yàlla. julli si yonante bi sant di sant sama gaa di di sant yow tamit di la bëgge di la siyaar di la màggal waaw mais bi ñu naan bu nga nuyoo comme sa mu jël ouz lu tax jël combat ouz dama bëgg lu lu ndaw ci parce que sama combat man ak ouz lu nekk ba palmarin am ñu may di ma yàpp yi fi ak ñu si xewoon lan moo waral combat bi affaire yooyu nag di ma laaj di ma laajaat ma bëgg a leeral lu ndaw rek si diggante comme affaire combat bi dama toog parce que maa ngi dégg sax uus si boppam moom si wàllu mu ne man maa ko laaj combat mais man du ma laaj mbër combat man xale bu ndaw laa nekk ci yoon di jàng bëre uus su ma ko soxlaa mën naa koo dabu si mbapat yi wala ma dabu ko feneen ak feneen ñu bëre jombul ñu daje si làmb mais du laaj mbër gars yi fekk nañ ma suñu kër boobu ñu ngi doog a déclaré euh, tournoi bi ne ma sëriñ ñoo bëgg a tëgg fii de tournoi tournoi bi galaa lay doon ay combat nommé quoi ma leen combat nommé ñu ne waaw ne loolu amul benn problème ñu ne ma si lañ ma expliqué wax ak man ba pare ne man ñii lay demee ak ay nag la ñuy teg ma ne leen adversaire comme kan ngeen ma bëgg a jox ñu si lañ ma wax ne dañ la bëgg a jox boros boros quoi boros euh, boros bu marfa ba ko ma ne leen ah ma ne ni ngay gis nii moom du ma ne benn mbër jox leen ma ko ñu bëre parce que ñu ñëpp ay moroom lañ ay nawle lañ dañuy jàng bëre te ñun ñëpp ñoo bokkandoo liggéey bi duma ma topp kenn naan ko jox ma ko wala jox ma kii bu boobaa bu demee bi su mën di am ñu ne diw moo taxawoon di ma laaj wala diw moo ma defoon lii léegi si la ma euh, kii euh, Seydou Ndiaye Seydou si la ma expliqué mu ne ma léegi comme comme ça Euh, dinañ dem wax ak mom lu mu wax rek après ñu ñëw wax la man ne leen kon amul problème bu ngeen démé walaaj ko lu mu leen wax ngeen doog a ñëw ci man kon moom bu ngeen bu paree rek man paré na mu tok ba dir ay une semaine woowuñu ñuma bu ñuma dara ba jéki ma déggaat dog ba dégg ni sa ay remote sax ñu naan ma uta bu bëgg la uta la combat yow ak sini siini bariña ma leen ah laaj leen rek lu su mënd am daal en tout cas bu ngeen laayé sama adversaire bu d'accord rek man paré na yaa ngi dégg ñu dawalaat ay quelques jours mm-hmm. ma toog suñu kër suñu kër laa toog mm-hmm. jékk sama grand bi sax moo ma toog mu ne ma mm-hmm. gars nañ la adversaire ma ne ko adversaire mu man a yow Ouze laa dégg ñuy wax fële ma man mu ne ma Ouze bu Palmarin ma ne Ouze bu Palmarin mu ne waaw kan moo wax loolu après ñu ne gars yi ñoo ko programmé nee nañ comme liyam lañ laaj ménagère am mu accepté combat ma ne ko ménagère am mu accepté combat mu ma ne leen laaj leen laaj ngeen ko ba lu mu wax ñu ne laaj nañ ko léegi après gars yi tëgg affaire bi si boppam ñëwaat fekkaat ma ko suñu kër dama ah sëriñ instant bi ñu toll nii de gisal nañ la adversaire ba pare palmarin ma ne palmarin mu naa ma ne leen kan ñu ne ma uus ma ne leen uus mu naa wax mu ne ñu wax jox nañu accord ba envoyé nañu fa ñoom loolu lañ ma wax jox nañu accord d' accord na ba envoyé nañu photo yëkkati photo bu woon ma ko ci téléphone am ma ko ah mu ne waaw ma ma ne ah, dellu ginnaaw na mu mu utal ko yaa ngi dégg kon mu na dellu ginnaaw damay bëre ndax làmb la quoi mais comme li ñu naan comme Serigne moo laaj combat bi ak moo ko incarné loolu noonu laay bañ comme mu bëgg koo leeral nit ñi ñu mën a xam ne man du laaj mbër man du ma laaj benn mbër muy uus muy keneen muy keneen ak keneen du ma laaj benn mbër na ko kaay mais mais uus nee na mos na la génne waaw uus mos na maa ndàngaan waaw loolu mooy jamono bu may doog a commencé bëri rek. Ah, jamono bu may doog a commencé bëri. waaw hmm. jamono boobu doo mos a génnee ndànk. nekk ci nekk ci nekk ci nekk ci waay ne yomb parce que euh, combat bi à euh, ah. ah, domicile nga koy fekk fan ma ngeen kan fan ma ngeen kan est-ce que sëñ yaa ngi soogaan non man loolu du ma ko sóoraale. Mhm. bàyyi ma ko xel sax. Mhm. pour man si àll bi la ñuy daje sax. Mhm. loolu laay bàyyi xel instant bi. sóoraale ma sax ne palmarin la ñuy bëre. parce que man damay jugee fii takk démb dem palmarin bëre. comme sóora bàyyi ay palmarin la dëkk. wala biir palmarin wala nangam palmarin loolu bàyyi ma ko xel man xale laa damay bëre. te tamit damaa gëm ne damay dem bëre daan ñibbi si. loolu laa gëm. <laughs> waaw moom bu fekkee loolu la jàpp rek. mais Zambro yow xam nga. xam nga bu baax xam nga. non man kay xaw <laughs> xam nga rek. <laughs> non xaw ma dëgg de daan ci ay ah. mën ngaa wax ne mën na maa daan ci ñi xam nañ. Ah. waaw Ousse de nee na mu jaaroon foofu lay jaaraat. non foofu mënatu faa jaar. ah loolu la wax de. foofu mënatu faa jaar Zambro ñu ma daan année boobu. Mm. waxuma Ousse mm. ñi ma si daan année boobu. Mm. bu ma leen teewaatee deuxième année ba waxuma dë léegi instant bii ma leen téye. xam nañ ne mbër moo leen téye te liggéeyaat waxuma la nag année bii nii ma toll nii yow est-ce que nekkul napp aussi. <laughs> non napp ma ko sax. Ah. dama koy xamal rek ne boobu ñu bëree woon man ak moom mu génne ma ar attaque. Mm-hmm. deuxième année bi mbër bu ma si teewaat bu ma daanoon ñi ma daanoon laa waxuma mm-hmm. comme ñi ma bëre laat génne par attaque ma daanoon. Mm-hmm. bu ma leen teewaatee. ñoom xam nañ ne mbër moo leen teewaat. te booy bi dafa ñëw pour faw dafa ñëw pour bëre. loolu loo koy wax sa adversaire ne ko góorgóorlu rek yokk entraînement am. yokk ay contact ndax lu am bëre am na bëre am na damay bëre luy am am na ba pare combat bi taxaw na man lu nekk sama ginnaaw dafa bëri lu war a nekk sama kanam tamit si làmb dafa bëri ko war a dabu ñëpp dañ yaakaar ñu nekk ay boy nag ay révélation nekk si dëkk bi pas dem bëri nañ ñëpp di entraîné ñëpp topp suñu ginnaaw jiital ñu ñu ñoo fooyee lamb day ñëw def lu sama bopp def lu def kon euh, sëriñ bi sa dëgg ñu waaw di sant di sant sama gaay di sant sama gaay yëpp bàyyiwuma kenn bu ma limee damay ñoom doy ñoom ñoom yaaya ba ñoom ñoom Mali bàyyiwuma kenn si gars yi ñoom Big Mama ñi may contact ñu ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn waa écrit bi maa ngi leen di sant mooy écrit yi di contact écrit confiance écrit confiance <laughs> maa ngi leen di nuyuwaale ñoom ñëpp au passage tamit waaw di leen jox rendez-vous le di le vingt huit incha allah waaw Palmarin Ngalaw dem dem def ndam ñib si waat ah. loolu la ñu gëm te loolu la demee jaajëf Zambro Baye. may wax ci bu Zambro tuuti. waaw Zambro bu baax a baax a baax a baax di ko gërëm di ko ñaanal moom koo xamante ne si bi na fa. dem ba yegg fu ko raw. parce que chaque jour mu ngi sonn si ñun. di def déplacement jóge Palmarin ñëw ci ñun. xam nga loolu yombul kon dañ koy buddi ñaanal rek sa kaw sa kanam lépp loo xamante ne mu koy séntu si biir yàlla may ko may ko ko mu raw mu raw si ay maasam. raw si sit yëpp yal na yàlla def loolu